asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziara di leen bëgg yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV tey nag ñu ñëw golf ndax liñ fi indi ñëpp xam nañ ni euh, heure bu màggal jub see rek dafa am loo xam ni moom moo am muy safar tey nag ñu ñëw fii nag ku ne Balla Gaye ne Sa ku ne Sa Thiès ne Balla mu nekk nag loo xamante ne nekkul pour une première fois ñuy safar ah dañuy bàyyi nag Salif mu nuyoo après ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy safar bi après tamit ñu laaj ko ci lu mu nekk Salif maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di wax ni tamit jërëjëf suñ Tuubaa waaw ñu ngi lay fay di nuyu di ñaanal ñi gën a àdduna yàlla xarale àjjana ñu caaféeti ginnaaw caaféeti leen kanam ñu tëddoo bi si itam yàlla yëkkati leen. Salif euh, tey ñu fekkaat leen ci sawar safar gi ndax gisoo nañu daaw def ngeen ko euh, ren tamit ngeen tàmbaliwaat ko bii mooy ñaata édition. <laughs> non du deuxième de. cest à ko daal ba ñuy tàmbalee mu rey ñu gàtt. amul benn gaat bu ci dee dañoo ko si jënd yàpp def soos. woo gaa yi tamit xam nga sikar xam nga dane saxaabay ci lañ xëy toog beneen année bi nag lañ ne nañ ko préparé beneen année bi ay ginaar la jël mais boobu peut-être na amul tur comme nii mais xëy na fa tombé daaw nag fa tombé woon nag ñu ñu teel ci yoxtaan aussi ak suñuy nit yàlla suñu borom defal ñu lépp lépp lépp yomb dëgg yàlla lépp yomb aussi tamit ñu mel ni tas ko ci dëkk bi xam nga benn instant moo waral ampleur bi ma am nii waaw dëgg yàlla mais nag ñi ci jàpp aussi ñoo ñoom ñoo bëri ndax ñun dong dong dong dong ñuy doolee poste toll fa waaw même bu fa tollee aussi tamit day métti pour ñu def ko aw fond waaw mais xëy ko comme Omar nu mu ko waxee rek ba pare day dem seet ay nitam man ma dem seet samay nit keneen seet ay nit nit ñooñu jàpp ci aussi tamit ba lépp yàlla suñu borom teg ci loxo. Mm-hmm. gis ni yéen da ngeen dox ci social même bu dul safar dañuy gis ngeen di dimbali ay nit dox ci social trop loolu euh, lan moo lan moo waral loolu pourquoi léegi yéen ngeen jël social bi rek gën cee fës. non du cadre fës wala yooyu parce que tamit xam nga nit bala yàlla dañ koy dara pour ngeen bokk ko sa ko rek parce que tamit. ni ñuy joxe alal di ko jox nit ki tamit nit ñi am na ñeneen ñoo xam ne yiy jël alal di ko def ci ñun am na fu mu gën a jege foo xamante ne war nañ ko mën a def kon noonu dañ koy sant yàlla ñun dañoo jël. yàlla moo ñu nattoo li ñu am mën koo bokk ak jaamu yàlla rek waaw. safar ji na la commencé. tey ji la commencé. Mhm. waaw ngeen fas yéene ko def amul àpp de. amul àpp mhm. waaw. amul àpp daal amul ngi safar daal. waaw ba keroog ñuy xool daal ñu ko organisé. Hmm. waaw euh, mais tey préparé ko préparation bi yomb na ndax gis nañ ni macha allah ren dañoo gisaat beneen innovation gis nañ gétt nag bi dañuy ñaan yàlla mu gën a gën a yokku gis leneen euh, initiative bi moom tey tey affaire yi nan ngeen koy dee ak gaay yi togg loolu yëpp da ngeen leen di fay wala ñoom ñooy ñëw pour ñu leen di toggal pour ngeen bernal nii ñi. xam nga yàlla yàlla mi ñu sàkk. lépp looy def ci xol bu sell dina la ko yokkal ci lu baax boo ko defee rawatina ak Sëñ Tuubaa biñ ci boole mooy xool ko ci daaw cinq la woon ren ëpp na huit nag mhm. wala boog ci ab ñu kon saa yaakaar naa ni buñ ko defoon nag leneen lu bokkut ak li fi ñu war a jaar ci app naa ni kon ren gi nag yi duñ fi yokk mhm. waaw dëgg yàlla mais nag moom laa wax ni yenn saa dañ koy yéex waxtaane mais day teel a waaw ah, loolu nag wax la may dégg-dégg la laaj. mën nañoo toog safar bi nekk tey ñu war a ñu war koo def fii ak samedi tey mu nekk mercredi jeudi vendredi samedi n'est-ce pas mën nañoo toog mercredi duñ ko waxtaanee jeudi bi duñ ko waxtaanee mais vendredi vendredi bi la ñuy toog nii rek ñu ne eh wol wol sa digg wol wol sa wol sa man ma jël sama téléphone woo sama nit Omar wooy nitam gars yi xëy fi di yi nag ñii nii Rachid ay soble ay pomme ñii génne wéccet bi lañ yàlla may ñu jël suñu poos boole ko moom ba lépp dajaloo tey loolu noonu moo ñu dimbalee lii maanaam lu ñu naan mbooloo may doole gëm naa ko li ñu naan tam tànk suñ tubaab mu tànk ginnaaw gën naa ko koo gëmati dëgg yàlla ndax loo tàmbale woon ba dara munoo reyoo nga dem bay rey ginaar xar nag ba nag yàlla suñu borom gën ci def mais nag dañuy ñaan yàlla déwén gii déwén gii di ñëw mu fekk ñu fekk jàmm te yàlla bàyyi fi ñëpp ñuy xëy chaque jour di rey ñaari xar ñaari nag ñi ko ñaan ànd bi stop ñuy xëy di rey ñett nag waaw defuñu ko na nga gis ak dara mais dañ ko def rek ngir xol bi sell ak i taalibe am na solo di ñaan yàlla mu gën a yokk ndax année bu ñëw rek a ah, daq beneen bi ndax gis nañ ni ren corona bi dafa amoon sax lu mu téye mais di ñaan yàlla ay wërsëgam di ñaan yàlla daal lépp yokk ci barke Seydina Mohamed